ñu ngi wax salaamaaleykum wa rahmatullahi wa barakaatu. am na kulli shay dañ doon ñëw rek ngeen gis ñu fi moom moo gis ñu ci wetam ndax jamono it moo toll foofu nag te géej góor bu baaxul ndax jonge du sa war a tax te da koy jaral lu ne ba crédit amul sax ak téléphone ña koy def daa leen ko réussir mu jaral leen ko ba ñu réussir ko léegi da ngay toog fa ngay toog def la ngay def duggul li ñu 30 minutes rek loo ca bëgg a yàq yàq ko te nag ku ñu sax ci sam nopp naan la nii la nii la di nga mujj ni ah jàpp naa ni noonu la kon nag euh, bu ma ko dee jéem woo téléphone mu të du ma ne woo naa ko jëluma damay jóg ñëw ndax ñi ko soxla dafa dañoo bari te li muy utiliser téléphone sax la koy day daw téléphone maa ngi koy nuyu di ko ziar di ko wàcce wàcce waaye jamono damay ñëw mu gis ma parce que soxna Saafara Taal dama ko war a gis ci guddi gi ndax suba la ziaru baay bi Sëriñ Makki waaye comme dogu woon naa ci ñëw fii eh, fokk ma ñëw nga gis ma di feddali rek kóllëre ndax am na logique boo xam ne léeg-léegi sax ñu misaal ko ci xale te fekk na logique bu mën a mag mën a jàpp la xale bu ndaw buy jàng eh, jardin d'enfant am trois ans moniteur am di ko laaj ni ko jant bii ak Tamba lu gën a lu gën a jege xale bi ni ko jant bi mu ne ko foo ko teg mu ne ko man ko chaque jant bi laay moo tax moom moom la jàpp ni moo jege ndax moom lay gis loolu nag logique boobu moo tënk ñu baree baree baree bare parce que njëriñ li ñuy wut du ñu ko gis fii mukk di ko yootu fu gën a sori bu dee njariñ dong lañ ci jublu loolu tabaarakallaa mooy li ci nekk maa ngi lay nuyu di la ziare di la wàcc sa wàcc waaye di sa siidi am nga élément yu baax man fu ma dem seen ñi teral ma ci biir dëkk bi mooy aéroport fu nekk da ngay dajeeg nit mu boo reeru gis mu yëkkati ko la xàmmeewu ma maa ngi la xamee ci shérif lu jeex du xaaj ay mag ak ay ndaw ñëpp loolu nag. yow mi tax war nañu di la delloo njukkal di la ko xamal di nuyu euh, Maxtaar Diouf nii am naa sax lu ma xaw a rus ndax dañu dañu daje ca New York bi ginnaaw bi ñu gisee fii mhm. ma bëggoon a am lu bari lu ma seede ci moom mhm. waaye wax day fattu mhm. ginnaaw bi mu làqatoo benn nit gisatuma ko ma fàtte ko ba joxe micro bi mu dis ma nag te muy nit ku baax zawiya bi ngeen di dégg ci New York ñoom ñi ñoo ko yoree ba ubbi nañu zawiya lañ ca def mat na 3 milliards bis mu ne wax leen ko moom ku baax la sama jigéen a ngi ci gannaaw tamit kenn jaaj moom gis nga rek ba man la nekkoon li mu toxu sir way ma jaaxle lool ndekete dafa waddal dërëm for téeméer ndax mi ngi ci yow bi ma nekkee Màkka ren ma nga woon ca Mexique ca États-Unis ca doom ji am yi waaye dañ doon jokkaloo tout le temps muy ku yàlla jàppale ko di nuyu nag waa xadara bi yépp jàngale li ngay xuma lu si war a jàngale waaye orienté nga jàngale nga gis nga cadre soxna yi ngay wax ba sa yaram tàng ba nga am condition yoo ci teg dafa lu yomb bu yombee ba ëpp day mujj nekk yàqu-yàqu defar côté bee defar côté bi xam nga nasrum nu xajaaj sañse ba benn bis mu nu tëll rek benn xale bu jigéen gis ko rek xale bi poète la daal di jël xalimaam daal ni hël min sabilin ila xamrin fa ashrabaha am hël sabilun ila nasr ibn hajjaj lu gaaw gaaw mu ni hël min sabilin ila xamrin fa ashrabaha ndax du ngeen ma xàllal yoonu ma demee ci sàngara naan ko ndax ma fàtte waa ji bu ngeen ma joxul sàngara pour ma fàtte ko am hal sabilun ila nasr ibn hajjaaj ngeen xàll sama diggante ak moom fu mu ne ma fekk ko ci jigéen bi loolu amee Omar ibn Xattaab woo woo woo Nasr ni ko Omar ibn Xattaab wala Abdul Aziz kenn la ci daal ni ko éloquence bii ma dégg ci xale bi ak taar bi mu yor nit koo xam ne saa boo ci kon bi ko fi du yor ndaw si xam nga seen dafa waxoon ni yaakaari ndaw ak yaakaari xale yàlla du ko teg ci loxo koo xam ne saa boo ñëwee ci kon bi fekk ko fi <laughs> yaakaari ndaw ak yaakaari jigéen yàlla du ko jox koo xam ni saa boo ñëwee ci kon bi fekk ko fi mu ne ko dawal gaaw mm. wuti ay moyen ndax kii jàmbaar ko man a yor nas la dem woo xale bu jigéen bi ni ko yaraatal sa bopp parce que ëpp nga nekk di réagir nii demal dolli koo defar sa jikko bi mu demee defaraat jikkoom mba xam nu muy réagir ci kanamu góor kee defar dooleem ba ay moyens ñu boole leen sëy defar boobu nag moo ci la chérif di dox ak yërmandeem xale bu góor bu mu ci gis xam ne apte nga pour nu may la parce que mbirum sëy dañ la war a jàngal ba nga am diplôme ñu door laa may jabar yow mi sëy dañ la war a jàngal ba am diplôme ñu door laa may mais ñaari condition la Sénégal di mayee mat ko ak man ko te xam nga mat koo gën a yomb ndax sa yoon newu ci yow jigéen bi yàlla xëy xëy def la ponkal Chérif di Diouf kon nag su ko defee bu ko yombalee yombal yombal te bari na ci ñoo yàlla xam nga yéen yàlla junj na ko bu yonent bi di gàddaay nee na leen koo xam ni ya sama jëmm a tax ngay gàddaay dinaa la fay waaye koo xam ne jigéen jigéen a tax ngay gàddaay parce que daf ci am ñoo xam ne bi la yonent bi proposé ni leen dañuy gàddaay dem Madina dañoo joxe ngànt samay gileem dafa ëmb te war am doom yàggatul ñii ni man samay tàndar man ñor na dama koo war a bàcc ba joxe ngànt mais bi ñu yëgee nii seen coro yaa nga ànd ak yonent bi dem ba ñu laajtee ñu nii Yacine Diop dem na coro ñu ñëw yonent bi ne ko daal dañoo bëgg a far dem mais yàlla xam na lu ne mun leen nag koo xam ne yàllaa la taxoon a gàddaay dina la fay waaye koo xam ne nii Yacine Diop ma dem moo tax nga daal di joxe waat sa kàddu ah <laughs> loolu rek ngay am su defee ñii ñëw li sëñ Moussa Ka liggéey boon rek daf nii. naafiq yaa ngi dox di raam ngir jamono mm-hmm. jàngal isa laqu alladina amanu bu ñu ñëwee Touba ñu roog waa Touba te bu ñu delloo ci réew mi yemel ni kooba <laughs> waaye di ngeen xam ne Serigne Touba mu ne su koo ndax mu ne su koo jommal ku tawlu day teex mm-hmm. xam ida laqu alladina amanu qaalu amanna mm-hmm. wa ida xalaw ila shayatinihim qaalu inna maakum bal nahnu mustaziun yàlla ko wax ci bàq surtout bàqara am na ñoo xam ni ay naafeq lañu bu ñu ñëwee keneen bi ni ko gëm nañu munu dem seen moromi naafeqeen leen gëmunu dara yéen lañu àndal dañu ko doon nax aaya ba rek la tàmbalee wooyee mu ne naafeq yaa ngi dox jàngal ida laqul naafeq yaa ngi dox di raam ngir jamono jàngal ida laqul la dina amanu bu ñu ñëwee ñu roog waa Touba te mu ngi delloo ci mi mel ni kooba waaye ngeen xam na si koo nax mën na si koo jom man ku tawlu day dex mbooloo mu nekk nag am na ci noonu taalu nga at ak am ceetaan pire. laay laay bàyyi na ku la ne foo dee ma dee fa booy dee muy daw. waaw. Serigne Touba moom bi muy dem bi muy bi mu tudd jeewal bi nga tudd léegi. xam nga ne nag ay yesamini la waxee nga jeewal yi bi yaa wali mooy li nga doon wax léegi ni loo wax am na foo ko teg. waaw te ne ay yesamini yaa wali mm-hmm. yaa wali yu ba am la mu ca am mais ña mu àndaloon ba yu fi taree dañu koo woo réunion sëriñ bi toog bismillah ñu ne ko waaw ñun daal mbàkkee comme nun taree la gisuñu ko ci alxuraan dañoo bëggoon mun leen nag jaay bu leen dinga seen daal bu ngeen ñi wóor bu ngeen ñeetul mais sëriñ fi bi la yem dem leen te bu leen dinga mais soo demee tam loolu lañ ko wax woo ko réunion ne ko nun daal comme taree la gisuñu ko ci alxuraan dañoo bëggoon nga ñaan lu dellu ñu bu leen lekkantee bu leen seen fit teel a yem dem lekk bu leen di ngat waaye am na ñoo xam ne bu taree ba tar ñu ñëw sunu maam jii ci wax bu muy tàmbali woote góor ñi nanguwuñu a dem nanguwuñoo dem mu def pexe dem dajale jigéen ñi jigéen ñi yem si ni ñu jog ma góor ñi ñëw waaw waaw Seydou Aliou Malick bu ñu commencé woote ci Tiwaawan yëf yi taroon na lool waaye defoon na ci benn stratégie teg fa kees ci jàkka ji ku sëgmal jullit teg gi ñaar dërëm mu ngóor la mu daan ne ràpp te teex gën a yàllaa fi nekk nguur gi jeex na. Covid Boigné def na ko ko d'Ivoire ñu tabax tabax jumaa ñu ne comme du jullit duñ fa julli comme du jullit yoonam ci lislaam lu tax muy tabax jumaa duñ fa julli ah mu teg fa kopp korom ak benn waay bu sëlmal jumaa teggi 3000 mujj na ca kaw mii réew ñu taxaw di gàttal. moo tax loolu moom mun ci ñàkk waaye bu ko yombalee ba yombal ko lii ko dal ci am ci nit yaakaar moom décevoir la loolu neexul waaye nag tabarakallahu yow yàlla mi tax ngay def dina la fay yéene ji ngay defee innamal a'malu binniyaati wa innamaa li kulli imri'in maa nawaa jëf yi mi ngi aju ci yéene yi mm-hmm. waaw yéene ah nit ku nekk la nga yéene loolu la ñu lay fay kon nag yéenente jàmm gi dara gënu ko benn buur bu dëkk ay nit yi leen testé ba xam yéenente nañu jàmm wala déet te ñaari façon la def benn bi daf leen a invité reer teg table table yi ngeen gis noonu rek ci lu mel ni table yi nay assemblée wala feneen table yu gudd yi nga xam ni kii day toogee nii kii toogee nii jàkkaarloo mu teg plat yu am solo ñaar ñu nekk jàkkaarloo kii toogee ne kii toogee ne pour mu xam ku ne li mu yéene sa rek kudd yi mu leen jox kudd gi nii la guddee te nee na leen amul benn kudd kudd koo sañ a téye ci digg yow daal lu ma xew fii ngay téye boo waaye ku tibb pour compliqué loolu benn waay ci seen biir moo leen ni bu ñu ci bëggee génn kenn ku nekk boo tibbee leelal nga gàttal loolu ci yeneen te jàmm bu amul woon mais loolu du ko réussir moom du choc mun la yéen ñaar yéenay jàkkaarloo ñu jàkkaarloo jàkkaarloo moo daal leen di woowaat ci biir ni bu ngeen dalloo nag ku nekk nga taxawoon taxaw fi ci biir mun leen ndox mii koo ko buusu ci xar kanamam xar kanamam dina rafet bëtam dina leer waaye ndox mii koo ko buusu musulman kenn ku nekk nag am nga ngay jàkkaarloo boo xam ña am yéene ci seen morom guux ndox ma nga xam ne koo ko buusu xar kanamam leer bëtam seet ña nga xam ne yàq seen morom lañu jublu guuta ndox ma nga xam ne kooku buusi mu silmax bu ñu guuxee ba ku ne say lef lef jàll ñu jàkkaarloo mu ni far leen wan na <laughs> dañoo <laughs> <laughs> moom la wala yéene néeg la borom a néeg kon nag yéene bu rafet bi nga ci am ala kulli xaalin yàlla dina la ko fay te ñoon amuñu sa sa tey jaar na ñun fu nekk du tey li may wax nii du tey booba dangaa góore rek waaye ba ngay tàmbali di jëf boobu mënoo waaye yaakaar yàlla man nag problème bu ma sa am ma la ko waxee yàlla dina ma ci sutura ba ma réussir loolu bari ci ci yu bari loolu loola dafay yàgg moo tax changement man nag man ku ma ku ma mere du ma xam foo ko teg ndax man du ma wax lu bon du ma ko def du ma tooñ tey lu ma mere mere sam noonu bu mu mën a doon lu tax ma toog fi yow ne ci dara du toog moom it ndax képp koo xam ne boo toogee si moom ne ci dara nit dootu am confiance ci yow ndax day jàpp ni bu la gisatul fa nga mën a ne moom moo tax man assuré naa sama ànd ak yow ak sama kóllëre ak yow bare naa yeneen détails yi nag du ma ci dugg ndax ñëpp ma ne wuñ xam nga seen Cheikh daf ni ku ni ñëpp ñëpp samay xarit lañu di sa noonu baay parce que ña nga xaritoon ñàkkute ko noonu sa baay ku ni ñëpp samay soppe lañu sa noonu baay nga ndax ñëpp ñoo ñu ñàkkute ko noonu sa baay su fekkee nag ku la noonu nga noonu ko ku noonu kii nga noonu kii da mujj dootoo dund yow assuré sa relation nit ki te protégé ko li ci def nag bul bul wax lu ko bul ko def jeex na waaw ah, na waar sëriñ Cheikh nee na magu yi boo àggsee bëgg leen a wax loo caaxaan nee na dañuy bu la séenee ngay ñëw dañuy jël nent loolu def ci seen i bët def ci seenum laafa ba ci seenum kii boo àggsee gis bët yi bas basi waaw góor gi leen ne mooy feebar rek feebar ah, kon nag maa ngi dem ba suba booy dem mu seen mu toog ni waaw kay parce que bu dul loolu dinañ la bëgg loo wax loo saxaan waaw. moom lañ daan dem ndax bañ nga dugal leen ci saban waaw Chérif Ibrahima Aïdara ba sa turandoo bu xees bi nee na yow daal bu nit ñëwee di la wax loo xamul lu mu doon bul paase ha ho iskay waaw nee na daal jàppoon loolu rek ha ho iskay loolu boo ko jàppoo di nga di nga mucc waaw di nga mucc allahu loolu mooy li ci nekk chérif lu rek la eh, kon nag eh, damay bàyyi suñ siidi comme li ko sant mu def ko man ma dem seeti soxna Safura xam ne tey jii bu ñu war xadara bi nga xam ne Serigne Abdou moo ma si jox ndigal Serigne Moustapha dooma ko amaan tàmbali ko sax mën naa ko këpp ci xadara bi ndax dara du wax ni lu baax lu baax rek waaye nag comme yenn yenn wàllu ñoo ña xëy na jëfewuñu fi ma toog ñu ko defal ñoom suñu paree timis ma neex na ma daw rotteeku ñëw wax tamit na ma engrais fii waaye loolu daal euh, xam ko te bëgguma jël kàddu gi ba mu jeex xëy na beneen yoon nit ku dund kenn du bind biographie waaye bu doon tey dañuy bind bi biographie kuy dund mën naa ci dund lu bari waaw lu bëree bëri mën naa ko ci dund waaye nag euh, nañ ko mottalee rek ñaan yàlla barkeel mu tam nañ bu baax ki na jaaji moom maa la koy dénk xam naa ñeneen ñi sax comme lu doogoy dox suñu diggante yow sax xamare bi dafa metti waaw dara yi xamare yu bëri ak mbooloo yu bëri rido bii ak daa lëj lëj waaw daa lëj lëj waaw waaye nag noonu la gënee waaw waaw noonu la gënee ndax gars yi moom ci euh, bëree bëree bëri waaw léegi nga gis ko ñëw nii bind ma daayira bi bind ma ci sa daayira bi waaw ndax xale gis naa ci xale yu baax yow yàlla boobu ndaje na moom lay dee yow waaw dama koy wax léeg-léeg nga gis ku ñëw guddi àjjuma di xiin xiin di xam si ko ba yàgg mu ne booy maa ngi dama am rendez-vous fekk dafa am ku ñëwul waaw kon loolu rek la woon dafa damaa la ñu war a wax la barkaatu wallaay ndeysaan wax na dëgg de wax na dëgg de moom daal jërëjëf kan kan jàll ñu ngi lay delloo ziar yëpp ngeen may ma rek bu ma daalee ne jox saa si ne rek